mbas mi yeggagul sax Saalum yàlla na fi yem bu mu fi yegg si mais nit ñi sonn nañu ndax bu ñu arrêté seen activité économique yi seen lu bëri ñe mi ngi metti si ñoom jaax jaaxle nañu ma ànd ak ñoom nag ñëw fii pour wan leen ne seen doom kat loxoom da jotul gannaawam as bi mu am dana indi bokk koog yéen. indi ko bokk koog yéen pour jàppale leen li nga xam ne moo gën a fondamental sama tenir si ndax man bi may njëkk di commencé doom bi xalaatuma woon ñëw sax. dama woon màggat ndes nag dama koy joxe noonu rek mais dama gis information sensibilisation yee nit ki yee ko si jàngoro ji fi mu toll dafa am solo moo ëpp doole ceeb moo ëpp doole dugub moo ëpp doole saabu ndax balaa ngay ne naam yàlla na fekk yaa nga fa sa ni ñuy wax fagaru moo gën faju gannaaw loolu suñu leen yeewee si loolu ñu indil leen li nga xam ne mooy tax ñu mag respecter mesure barrière maanaam li yoon santaane nga xam ne soo fa jaaree mën nga mucc si mbir mi mooy nga takk masque mooy nga raxasu mooy nga moytu dajaloo bi mooy nga gàtt tànk képp kuy demati lu dul farata bu la yëkkati passé na tey jii nga naan maa ngi dem kër euh, diw dama fay naani ataaya maa ngi dem sa ngént la maa ngi dem sa takk ga fi réew mi tollu moo ko waral su loolu passé aussi ma ne nag don bi may indi kat su ma matale woon képp koo xam ne bokk nga kër ma jabal am nga kër sama ndimbal dana fa ñëw waaye nag xalangu dajul mbaam

bo xamné dama ko indi fi nga xamné fi la deug tay événement bi am ni tay jii ci jafe-jafe bi nga xamné Sénégal mom lay dund Kër ma jël diko dund feneen di ko dund ku ci def dara yàlla rek moo tax nga def ko tay yàlla rek mo lay fay soxna ci yàlla na yàlla fay ci li nga def yombul nak parce que joxe mo yombul ci li nga am nga tibb ci jox askan wi yombul.

moom mi nga xam ne moo def action yi dafa participer si li ñuy wax effort de guerre parce que effort de guerre bi président moo ko njëkk taxawal du toll si 1000 milliards la ñuy voté budget pour taxawal guerre effort pour taxawal budget de guerre. Mhm. donc bu defee action yu mel nii mën ñu wax ne moom dafa participer si action yi nga xam ne président mu koy def ñu koy sant si loolu. action yi nga xam ne def na ko. Mhm. pour dimbali population yi. Lolo, lu ñu lu ñu rafetlu la lu ñu c'est une façon de participer à l'effort de guerre du gouvernement une façon de de d'aider la population te xam nañ ni nit ñi am nañu difficulté ci seen dundin ci seen wér donc Lolo, lu lu baax la. Mariama Dramé lu def lu la donc nous ngi koy gërëm diko ko sant di ko di ñaanal ko. yokk maqaamam yokk euh, mën-mënam ba nga xam ne beneen yoon dina def yenn action yu gën a euh, am maanaa